asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di ziar euh, di wax képp kuy gan euh, ci chain bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk ci ña ko njëkk a gis euh, wéy leen di liker di commenter te di partager c'est très important mbokk yi ñëw ci Cher Ndour Cher Ndour nag ku ne xam ne ne sénégalo italien la donc mën na football équipe nationale bu Italie également même bu Sénégal parce que papam sénégalais la. donc moom nag euh, je pense que ni bëgg naa jouer ci équipe nationale bu Sénégal parce que démb bi ma duggee Instagram euh, ci story maanaam ci ci ci statut bi mu def ci ci Instagram am donc mooy moom moom mooy photo bi ngeen di gis nii euh, fédération sénégalaise moom moo ko posté woon ci ngir félicité démb victoire bi Maroc am dem demi-finale première équipe africaine bi nga xamante ne moom moo dem demi-finale coupe du monde ma ci profité di leen félicité également donc Cher Ndour nag même photo boobu même kii boobu la reprendre jële ko ci équipe euh, kii nu mu tuddee page fédération sénégalaise de football daal koy reprendre ci historiam donc voilà quoi muy information boo xamante ne je pense que day leen intéressé te également même euh, ñi nga xamante ne ñooy dirigeant sénégalais euh, bu équipe nationale sénégalaise de football donc day leen war a intéressé parce que c'est un c'est un milieu de terrain très talentueux un joueur très talentueux même je pense que ne bon te ci équipe Sénégal euh, voilà quoi bo li mu reprendre nga xamné ne quoi waaw euh, fédération et tout ça donc voilà surtout sax li nga ne équipe africain bi nga xamantene ne la équipe nationale bu France possible, wul équipe nationale bu Maroc la li moy waral kané Afrique bëgg ñu football également euh, ci ci Afrique donc li ci des rek mooy euh, dirigeant sénégalais de football dem ceytu ko indi ko parce que c'est un gars très talentueux même très talentueux vraiment en tout cas loolu moo nekkoon information bi ma leen bëgg a jox euh, wéy leen di liker wéy leen di commenter jaa ngeen jëf